waaye Thiatou Samba Diaw laay waxal du sulbaa na taxaw dëggal sa bopp ma duma daan la maa yor du làmb na nga ci bi rek mais du làmb incha allah. si le 26 novembre. arbitre ne ma jàpp ko song ko jàpp ko daan ko. waxal tur bi. Ziguinchor ma jàpp la daan la. le 26. dégg nga Ziguinchor Pape Mar Pape Mar Thiam. arbitre na mooy téye defaral naa la. lu cur barki borom jaaree.